يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي يا حبيبي يا محمد كن طبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي يا محمد يا حبيبي محمد كن طبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي يا محمد حبيبي يا محمد كن طبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي بالله صلوا يا أعلى الكمال النبي باين جمالي من حوى كل المحال حضره ما زال عالي bienvenue, bienvenue, bienvenue sur Khadrou alim fakham dayman sami mukarram jawo jaa'un mu'azzam wajhu faqal hilal حبيبي يا محمد كن جبيبي وجوه بدر jërëgën jëf ci ànd beeg Sud FM seen rajo mi nu jot na ma teg fukki simili ak juróom xaaj mbàkk lu ci tegee jërëjëf oustaz wàllu auditeurs yi dee ci topp ñi ne ci biir réew mais ñi nekk bitim réew yëpp mën nañoo jokkoo ak ñun ci jotaay bi ñi nekk bitim réew ñoo xam ñooy def naan ñooy woote ci 88 628 98 98 ñi nekk bitim réew ñooy woote ci 33 841 22 33 ñu dem xadu wooli suqimat la ay nu woo tase bil hazaa sang ba ca Medina aynu woo sawdaka illa salatul aadi jamila bahjatu sami galila hadu woo faaxal xawaa sang ba ca Medina wal ma baasim sukariya wa sanaya lulagiya wa rawaayi anbariya haya jat fikri wa baa ya Muhammad ya habibi ya Muhammad 88 628 98 98. nu ànd ak yéen ba une heure teg fanweeri simili incha allah. sallallahu alayhi wa sallam sang ba ca Medina masi woo fi sari alam wa aka salla wa sallam bi barayi natu sallam wa alayhi zilluma sallallahu alayhi wa sallam ya habibi ndeysaan ku sopp yónneen bi ka muhibbin xata tayyam wa masuqin xata randam wa azuli xata ayam مريم وتسع ثوب النكال محمد يا محمد كسب يونن بي كمحب فتتيم ومسوق خطرا دم وعزولي قتأيم وتساسو بندك lépp lu ñu xam ci koo xam ne buñ ko waxee yonent bi rek ñu xam ko gaañ wax nañ ko yonent bi medina ya imam al anbiya ya malaz al asqiya ya imam mu tax nim neef ci xol yi kenn du ko def ci xol yi baayu Zeynabu ramu jaam ñi Mustafa bay ramu kii dégg na woote bi neen daa bëgg bokk xaaj Mbàkke ne ko ñu dalal ko waaw bismillah yaaram ñoo ngi fi ñoo ngi ah Mbàkke daa am question bu mu bëggoon laajte la waaw bismillah ah, Hmm. dañuy def bu at bi jeexee. Hmm. dañuy eh, dañuy invité ñun ñëpp ñu dem restaurant. Hmm. mais restaurant bi dinañ fa jaay yoo xam ne ay sàngara mais ñu ñu dul naan ni bu ñu naan sàngara. mais dinañ dugg ci restaurant bi lekk foofu ak ñoom. est que mën nañ fa dem wala mënuñu fa dem. d'accord jërëjëf. baax na ñu jaajëfal ko baax a baax ci duggam bu am solo boobu ak laajam boobu moo indi dara di jaajëfal mbokk mi di Mansour Ndiaye nekk ca Ali Imran ak madame Diop nekk fële ca Kër Massar ñi ngi aada ñu jotaay bi nelaw bi ñoo ngi leen di nuyu baax baax tey békki àndin wi oustaz mbokk mi nee na ñoom barab ba ñu liggéeyee bu ñemee ba ci njeexitalu at mi dañ leen di woo nag ñu ànd génn dem fenn xéewlu nopp lu tuuti waxtaan waaye ñaare buñ koy def barab yi ñi dem day am am ñoll muñ fay jaaye yu demee noonu donte nag ku ca amul soxlaat doo ca naan muy laaj ndax dem fa dagan naam déet bismillahi rahmaani rahim subhaanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim bu fekkee illay jeextalu at mi moo tax nu woo leen wujj ba dara nekku ca waaye taabal joo xam ne dangar da caa tege ab jullit sañu toog ca taabal jooja mm-hmm. jëpp taabal joo xam ne sàngar da caa tege ab julit sañu te toog ca taabal joojee wallahu taala alam wa shukran ci laajëm bu am solo jërëjëf ci tontu lu am solo luy ñu jaajëfal ko bu baax a baax xaar keneen ci ginnaawam ci 88 628 98 98 salaamaaleykum oustaz waaw oustaz la de waaw <laughs> maa la raw nam naa ñoo la raw bro na def rek jàmm rek kay bis alhamdulilah jërëjëf. mbaa yéen a ngi am jàmm rek. ñoo ngi am jàmm bu baax yow nag baa yaa ngi am jàmm bu baax. am bu baax. alhamdulilah ñun ñëpp ñu am jàmm. Sénégal am jàmm lépp lu wër Sénégal. jërëjëf bro jërëjëf. waaw dama leen namm nag. leen na naa leen naa leen nuyu. jërëjëf ñoo la raw. <laughs> mais tey man suñu ma toogoon tey fal ma dara ci dëkk réew mii. Hmm. am ndaw ma tàgg. Hmm. balaa may jël benn décision. Hmm. yéen ñaan waxtaan ak yéen concerté wu. <laughs> ndeysaan yéen yéen de ku leen di déglu. Hmm. day teg boppam ci koy yoon. jërëjëf xaw ma nag ku leen dul déglu. jërëjëf Boro. waaw ma leen di ñaanal daal ngeen gudd fan. amiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin loolu daal laa leen di ñaanal du dëgg. amiin jërëjëf jërëjëf yàlla dafa jàmm. amiin amiin mm-hmm. Boro ngi noonu ñu jaajëfal ko baax ci dugam bu am solo boobu oustaz. jaajëfal mbokk mi di Alioune Sow nekk fële ca Déni Biram Ndaw ak Jong nekk ci PH di ànd ak ñun jotaay bi. ñu ngi leen di jaajëfal ñoom ñëpp tey békki àndin woowu euh, min wi jot na ba teg euh, fukki simili ak juróom-ñeent ñu xaar keneen ci ginnaawam ana bi xayril anaami bokk ngi ni sëñ Mbàkke ne ko daa bëgg a bokk ñu daral ko waaleykum salaam wa rahmatullah waaw bismillah bismillah waaw nuyu baax a baax jërëjëf ñu ngi lay fay seen mbokk mi Aliou Barta waaw kay Aliou na def alhamdulilah macha allah jàmm rek kay waaw damaa am ci benn laaj waaw soo amee dafa nekk ak soxna bi soxna bi dañ dañ ko dañ koy lagat ko waaw léegi nag après moom dañ ko si dugaloon rek mais bëggul woon hmm. nee moom damay damay sëy ba xam sëy bi nu mu mel rek après ma génn fi hmm. léegi nag mu dem sëy ba am doom hmm. euh, euh, léegi nag ñu ne buggutul bugg ñaan baat instant yi waaw léegi dafa bugg ñaan baat te instant yi moom tamit nanguwul mu ngi lay ñaan baat te yow mi ñaanoo ko baat est boobu ak am na ci wàllu amoo ci est yow tamit sañ nga laaj alalam wala euh, laaj sa alal wala sañoo ko laaj sa alal. d'accord. mais instant yi mu nekk ndef bu génn ci sëy bi. Mm-hmm. te dañ dañ koy labat ji soo ko. Mm. tey mbokk rek ñoo jël jébbal la ko moom tamit def si bu góor rek pour bugg si bugg génnaat. Mm. loolu mooy euh, laaj incha allah. d'accord jërëjëf Oustaz kii ñëw léegi. Mm-hmm. ñu ngi koy jaajëfal baax ci dugam bu am solo boobu sey Seydina Aliou baax euh, te di ko ndokkeel mbokk mi ne mu ngi tudd Jamilatu Jaxate mu ngi ci Jaxaay Binta Fay nekk ci Touba Toul di ànd ak ñun jotaay bi ñoo ngi leen di nuy ñoom ñëpp te di leen siyaare baax a baax mbokk mi nee na oustaz ki nga xamante ne Eh, daal dafa dugg ci ab sëy waaye ba mu cee dugg moom eh, am na daal lu mu wax ne moo ko ci nar dugal mooy eh, xam naa da cee dugg noonu rek hmm. ginnaaw ba nag mu daal di bëgg génn ca sëy ba di ñaan baat ndax mënees na koo may wala fayee koo alal wala lan mooy àtte bi alhamdulilah ab sëy de ñaara koy bokk góor ku jigéen hmm. ku góor ki bu ca bëggee génn day wax fase naa la hmm. ku jigéen ki su bëggee génn day wax fase ma waaw ku góor ki de wax fase naa la ku jigéen ki day fase ma léegi nag bu ko góor bu ci ku jigéen ne fase ma mm-hmm. bu fekkee ku góor ki jëfandikoo alxuraan day mm-hmm. wax rek fase naa la mm-hmm. waaye mën na ne fasewuma la danga may fay alal ndax uh, xulu dafa am ci sëy nga yëkkati may gu njëkk gam la joxoon bu dee onze mille bu dee huit mille bu dee douze mille nga yëkkati ko ànd ak seede dem teg ko ci loxoom. mu nangu nga tàmbali jàpp idda waaw waaw. wallahu taala alam wa shukran. jërëjëf jërëjëf sëriñ bi ci duggam bu am solo boobu jërëjëf ci tontu lu am solo loolu oustaz ñu jaajëfal la ci baax a baax xaar keneen ci ginnaawam ci 88 628 98 98. wa rawaayi an bariya haya jat baal حبيبي يا محمد كن طبيبي ويل البن وعلم وإكمال فمه سر ونعمة خلبه نور ورحمة جل باري جل باري سول جلال حاج واكي kii nee na ndaa bëgg a bokk ñu dalal ko asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah bismillah bismillah sëriñ bi Oustaz Mbacke waaw yaaram na nga def maa ngi jàmm jàmm rek alhamdulilah aliya aliya na nga def baa yéen a ci jàmm bu baax a baax. alhamdulilah bisimilah Aliya. waaw Oustaz dama bëggoon Oustaz ñëw ci mhm. jamono yi mu nekkee président dëkkam. waaw. parce déggoon naa ñu ne xaw ma da doon jël ci alalu réew waaw di ko dépense di ko dox di ko jox soxnaam. Mhm. léegi bu ko joxee soxnaam soxna si la jël. Mhm. ba taxawal ci benn almoir. mu laa ko ne ko almaari foo ko jëlee te fekk Seydina Omar jox ko xaalis bi. Mhm. mu ne ko dépense nga ma doon jox laa doon dajale ba am ci sama almaar bi. ndeysaan. Seydina Omar xam ne loolu ci xaalis ma la bokk. mu jëlaat mhm. almaar bi jaay ko delloo mhm. nga xam ne da daan taal bu fekkee ni affaire rubé mi lañuy wax sonde ba daan taal. parce que sonde bi ci àll rubé mi la bokk. waaye léegi ñu ngi ñu ngi jiite nii ñoom lu ñu war a doxalee moom xanaa alxuraan bi ñuy jàng. sama gars daf koy jàng rek te duñ xam duñ ci wax wala ñu demee noonu. d'accord. man dama xam ne ñu jàng alxuraan ci réew mi bari na. Hmm. xam nañ li yàlla wax ci alxuraan. Hmm. xam hmm. ba léegi man dama gis ñu révolté wu ak suñu kilifa diine yi nga xam ne ñoo ne si réew mi. ñu ne fii ci toog di seetaan ñun suñu kilifa yi def leen ñett suñu alal ji. loolu daal laa bëgg mu ñëw nag. jërëjëf Oustaz Sane kii ñëw léegi xam naa alal moom lu ma ci am moom bu fekkee dañ ma cee tooñ. ab dërëm duma ko ba yow ma ko yàlla. Mhm, yàlla baax na. jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax a baax ci dugam bu am solo boobu. soxna Njinde Guèye mu nga fële ci Tivaouane Peulh Omar njaay ak soxnaam Aram mbay ña nga nekk fële ca Tëngéej di ànd ak jotaay bi. jërëjëf ñoo ngi leen di fay nuyoo sa jigéen bi di soxna Kurawan nekk Amérique nee na moom mi ngi ànd ak yow jotaay bi. Mhm, jërëjëf jërëjëf tabarkàlla Aliya nee na Oustaz dafa bëgg nga ñëwal ko ci Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu ci anamu misaal. ni doon yore nguur ba mu nekkee njiitul jullit ñi neena daal daa mel ne am na misaal yu baree bari yuñ ciy faral di indi te daa mel ne noonu duñ sàmmonte ak taxawaay yooyu mu bëgg nga ñëwal ko ci. waaw xam nga ñun sañ Mbàkke hmm. ay jullit lañ yoo xam ne euh, tubaab bee nu yar. Hmm. ñaar lañ def. Hmm. ay jullit lañ yoo xam ne tubaab bee nu yar. tubaab bee ñu waaw. tubaab bi nag bi mu nu yaree dafa fexe nu niiru ko te bañ niiru yonent bi. nun la def mhm. bu ko defee biñ ko niroo moom mhm. Mhm. li ñu séq ak yonent bi mooy ibaadaat yi koor jot ñu um aj màkk jot ñu dem tabaski jot ñu ren di xar loolu lañ séq ak moom li ci àdduna si nag jox ko tubaab bi mhm. loolu moo ñu yóbbee loolu ci waaw mhm. moo tax xese yooyu ak doxalin yooyu ak tëralin yooyu mhm. noonu duñu ko jàng pour jëfe ko mën nañ koo dégg nag pour yéemu ci waaye nag pour jëfe ko nag moom dañ naan dañ naan dañ naan yonent bi ah bàyyil tubaab bi mu doxal nu suñu diine dëgg na waaw loolu moom moo waral yooyu am. Mhm. tubarkàlla mhm. muy lu am solo oustaz ñu jaajëfal ko jaajëfal la kooku da doon yërndu waaye dëpp na ñu xaaraat ko ci bunt bi bu ñëwee rek ñu dalal ko ci 88 628 98 98. mu jëm ci réew mi. maam Abdou Sang. ma ne ki mhm. mi dafa bëgg a bokk asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. bisimilah bisimilah. Xaadim euh, Sarr Nouadhibou. sëñ Xaadim naka waa Nouadhibou. maa ngi sant yàlla bu baax. sant yàlla alhamdulilah bisimilah Sarr Sarr. jërëjëf salaam ak tawféex yàlla yàlla defal leen. amiin yaa rabbal alamin waxtaanu fajar bu tey bii yàlla na ko politiciens de. <laughs> ndeysaan. bu démb ak bu tey. bari xisi Souleymane ak koppar yaak doxalin baak la mu aajoo yëpp. wallaay ndeysaan yéeme na. ah yéeme na yéeme na allah ndeysaan. ku yàq si ne déglu loolu. wax nga jëfee de. ndeysaan. waaw gars yi nañ kaa déglu. mënoo déglu fajar yi. fajar yi eh, am na solo ci réew mi de. ndeysaan ndeysaan. ndax daf ma jox culture générale te loolu moom la ma dundee. moom lay hmm. waxtaane dëgg la kon war na nga déglu ndax lu jëfee. dëgg la dëgg la. waaw réew mu moom ni doxee wallaahi bokk ngeen hmm. bokk ngeen ci li war a doxal. ndeysaan bu leen laa jox xalaat yi seen nga dox ci suuf. ndeysaan. waaw dara yàqu leen nga nag di ngeen def lépp tabaarkaal la. ñëpp ñu koy defal jërëjëf jërëjëf xaadim jërëjëf. waaw macha allah daal yéen ñëpp daal tabaarkaal laaw. jërëjëf Saar jërëjëf. waaw benn aay bii rek fa'lam uh, annahu laa ilaaha illallahu. Mhm. fastaxfir li zanbika wastaxfir li zanbika. Mhm. walil muminina wal muminaati. wallahu ya'lamu mutaqallabakum mhm. wa maswaakum. suratu Muhammad. ndeysaan jërëjëf ay 18 la yaakaar naa ko. macha allah ay 19. dëgg la waaw. jërëjëf xam ñun danoo danoo am àlluwa. <laughs> allah baax na baax na. <laughs> man tax ci beneen bu gàtt boog wala. boobu euh, wa atiu rasul wala tubdilu ahmalakum. wala tubdilu ahmalakum. Mhm. waaw jërëjëf. Mbacke yàlla yàlla fay leen. amiin amiin yaa rabbal aalamiin. sa laajum bopp laaj ko fàttali. <laughs> incha allah incha allah. <laughs> jërëjëf. jërëjëf jërëjëf Xaadim Saar Nouadhibou lay wootee. ñoo ngi koy bëggee lool di bëggee waa Nouadhibou yëpp waa Saar Saar ak euh, ñëpp tabarakallah mbokk mi Talla Sow la tudd ma nga ca Touba Diagne jotaay bi. madame Toob Adama Mbaye nekk ci parcelle nee na nelawugut jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax a baax sëñ xaadim nee na faalam annahu laa ilaha illa allah wastaghfir li danbika wa lil muminina wal muminat wallahu yaalamu mutaxallabakum wa maswaakum lay ndeysaan mhm. sunu borom mooy wax ak kam yónni woon ci nun sallallahu wa sallam wax ji nag war a mhm. saxaaba yaak taabi'u nag salaf saalih mooy nit koo xam ne dafa bëgg jaamu boromam na njëkk a xam laa ilaha illallah lu muy tekki waaw lu mu ëmb hmm. fu mu jëm hmm. waaw lan la làmboo hmm. na ko njëkk xam ci waaw foofu leen kii tàmbalee su ca noppee wastaxfir li zambik jéggalu say bàkkaar boo jóglu say bakkaar walil mu'min na képp ko gëm yàlla na nga ko ci dugal bu dee góor wal mu'minaat te képp ko gëm yàlla di jigéen na ca dugg yàlla na xam na mutaqallabakum ki nga xam ne at mu jot ak na muy mel wa mafaakum ak nga xam ne du soppeeku yàlla xam ne ñii soppeekoo ngir soppeeku. waaw <laughs> est-ce que. penc mi sañ Mbàkke. waaw dafa am koo ne ki at mu jot ak ni mu mel. Mhm. wala weeru jot. Mm. suñu borom am ñoo xam ne daf leen a xam ñoom ne dégg ci liñ nekk. maanaam ma soppeeku. gan façon soppeeku yàlla di wax bu ngay jaamoo yàlla nii. bu mhm. subaa nga dugg ca lee. Mhm. bu subaa nga dugg fii bu subaa nga jaxase <laughs> kaas yi ginnaaw suba nga toj ko. léeg-léeg mu muuru yiw di sellal léeg-léeg mu ñëwaat. melaat na meloon léeg-léeg gi ñëw nga mel noo xam muy dem jàkk ba ñëpp ni kii jullikat la léeg mu bàyyi <laughs> ah, ci yàlla waaw sax ci yëf yi di jafe na mu ngoog mm-hmm. la am solo la wax fi tabaarkalla mu la bëkkum waswaakum waaw wa shukran ci laaj bu am solo bi jërëjëf aaya jëm ca la ba tey mooy aaya 33 yaa ayyuha alladina amanu uh, atiu llaha wa atihu rasula wala daa foofu ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen mm-hmm. yéen ñi nga xam ne gëm ngeen mm-hmm. bu leen yàq seeni jëf yàq si jëf nag mooy def lu def lu baax ba noppi mm. teg ca lu koy yàq isaan def lu baax ba noppi teg ca lu koy yàq isaan yàlla si na amunu atiu llaha wa euh, atiu rasul mm. topp leen yàlla topp bi yonentam mm-hmm. mm. wala tumatilu amalakum bu leen yàq seen i jëf yàq si jëf mooy jéem topp yàlla te bàyyi fi yonent bi mm-hmm. li yi di bëgg a xewal léegi. Hmm. ni fi ñukk addis bëgg a doxal alxuraan. dëgg la wallaay mooy eh, mooy kuréel gu bees googu ñuy wax. waaw sunu ñu naan julli ñaar rakk rek la du ñeent rakk. sunu borom ne loolu d'accord mu ci de. ay xuraan yuun <laughs> ñii wax na. Hmm. sunu borom nee na. Hmm. topp leen yàlla topp yonent bi. maanaam topp leen ma topp sama ndaw lii. wala tubtulu amalakum bu leen yàq seen i jëf. yàq su jëf mooy ñëw mm. jàpp ne mm. mën nga ëpp xel yonent bi mm. wala xalaat wala wala wala wala nga ne ko fa ñukk ne ko doo sama kilifa yàlla mu ne bul ñëw wallaay ku ma bëgg a bayal xëyal ca tool ba mooy sa jëw mm-hmm. waaw dëgg la dëgg la est-ce que ko ko woon ginnaaw loolu di soxlawu ma jeex na <laughs> masha allah <laughs> am na solo oustaz ñu jaajëfal baax baax sëñ Xaadim Sarr moomu mbokk mi daa bëgg a bokk asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah bisimilah. Sëñ Mbacke maa ngi siyaar baax. jërëjëf yal na yàlla nangu siyaar. ndo ndo daal borom naawel. waaw kay Diop naka borom naawel. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah am na mbégte lool nag wax jërëjëf Diop. di nuyu Oustaz di ko ñaanal jàmm xewal. jërëjëf Diop. ñu ngi siyaar baax a baax a baax wax dëgg yàlla kontaan na lool te am na mbégte. macha allah. mën naa ne tey laay doon di woote waaye yàgg naa lay am waaye vocation bi. wax nga dëgg kay. waaw ñu ngi am mbégte bu baax a baax di leen ñaan rek. yàlla sàmm leen aar leen. jërëjëf jërëjëf. barke maa ngi ñaan chaque jour rek. man moom damay damay faral wax sama aw ma benn njëriñ ñi fi nekk lislaam nag yal na leen yàlla taxawu. <laughs> aar a baax. bokk yàgg rek yàlla baax lépp lépp lépp dara na ko suñ yàlla teg. ci ngeen wér gudd fan ak mm. sëñ Tuubaa. yal nañ bokk wér rek jërëjëf. waaw benn laaj la doon leerlu. waaw. comme que wax ne yàlla dafa wax ne comme ku rey nit nan ko rey ku jam nit ñu jam ka mm. Euh, te damay gis ne dañ ne ko deful lu yàlla digle da nga am nga bàkkaar. Mhm. te man ba mu juddoo ba tey mosuma gis dégg ne si Sénégal bi wala feneen dañ ne ñu rey ko. Mhm. may laaj est-ce que ñàkk jafe googu ëllëg suñu borom dinañ ñu si topp wala déet. d'accord. waaw ñu ngi siyaar baax na sa Alioune Sall am naa mbégte bu baax a baax si dugg nag maa ngi siyaar bu wér-wér ba sëñ Tuubaa yal na leen yàlla sàmm aar leen. Mhm. jërëjëf barke sëñ ngi siyaar bu baax a baax. <laughs> Fallou Diop jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax ci dugam bu am solo boobu. jaajëfal mbokk mi di alxaaji Ousmane Dabo mu nga a ca euh, far ba Soumaré ci su FM la nekk nee na sëñ Mbàkke yaa ngi koy jàngal ci fajari loo xam ne. <laughs> tabarkàlla bu ngeen tesee moom mooy ndeysaan euh, musum mi daal lay jox la. ndeysaan <laughs> jërëjëf maa ngi koy nuyu baax baax tey bëgg ci topp jotaay bi moom it. Uh-huh. Euh, Sëriñ Fallou nee na Oustaz Diop mm, ñàkk jëfandikoo ate yàlla yi lu mel ne li mu wax ne ku ray nañ la xurma bu dee ku dencagut yooyu ñu won ko ginnaaw nee na ndax loolu dañ ciy am daani suñ borom maanaam bàkkaar waaw soo jàngee surtout aljaafiya mhm. aljaafiya mooy sukk sukk sukk say óom mhm. ndax ñi taxaw ñi mu toog mhm. nga nañ ci diggante bi wa tara kulla ummatin jaafiya jaafiya bis dana ñëw nga seen waa Mauritanie sukk waaw waa Mali sukk Hmm. waa Gambie sukk hmm. waa Guinée sukk Guinée Bissau sukk Amérique américains yi hmm. français yi japonais yi ñëpp sukk sénégalais yi ñëpp sukk ma lu ñu sukk kullu ummatin tuddaa ila kitaabiha waaw ila xeet wu woola ci say jëf ah foofu loolu la la ilaa kitaabi haaji mooy ku ne woola ci say jëf yéen Sénégal yi lan moo doxoon seen digganteeg téere bi daal xuraan. Mhm. bu ci noppee dem Gàmbi. bu ci ñu ko laaj ñun Sénégal lan moo dox suñ digganteeg téere bi. maa la ko xamee. est-ce que boobaa oustaz tontu ne rek ñoo ngi ko doon jàng am nañ ay daara xale yaa ngi mokkal lool doy na. déedéet. lan mooy tontu lu baax li foofu. tontu baax li mooy dañ koo jàngoon te doon ko jëfee. Hmm. coro ba ne bàyyi leen nangam coro lañ ko bàyyi. Hmm. ba mu ne defee nangam coro lañ ko def. est loolooy tontu lu baax la. tara kullu ummatin jaafiya. Mm-hmm. kullu ummatin tuddaa ila kitaabiha. kitaabiha waaw macha allah. loolu ci kitaab boobu kitaab la boo xam ne bii kitaab ñëpp a koy bokk. Mm-hmm. bokkut ak fa fa amoon uti kitaabu kitaabu mm-hmm. bi yamini. bi yamini loolu ku ne sa téere bopp la. Mm. dafa am kon loo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk. ñun ñëpp la ko yàlla laaj. ak boo xam ne bi ku nekk ak si yëf. ak sa jëfi bopp. waaw bi ñëpp bi yàlla di laaj ñëpp ndax ñëpp dañ ci am responsabilité wala man nañoo lay maanaam tey bu ma yàlla ne waa yow noo def ak Sénégal ba àttewoowuñ diine ma man koo wax ne ko loolu ka dama ko fee fekk ay loi wala nangam. dana am ñu lay suñu borom nangu lay wa. Mhm. mu am ñu lay mu ne nanguwuma ko. Mhm. dana am ñoo xam ne buñ layee. Mhm. dana ko nangu. léegi ñen ñooy lay mu koy bañ a nangu. ñii lay ñu koy bañ a nangu mooy koo xam ne ki musta xëy ci lu lu soppi loolu. Hmm. wala mu changé ko wala mu defar ko. koo xam daa mel ne ni mu mel nii neex na ko. waaw waaw très bien <laughs> kooka balay suñu borom du ko nangu. Hmm. fii ma kuntum xaalu kunna mustadafina fil ardi. wallaay xaal alam takun ardulaay waasi'a fatajuru fiha. Hmm. waaw est-ce que. ñooñu kenn nangul leen seen ngànt. waaw. wallahu taala alam que am na solo oustaz jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax te di la jaajëfal mbokk mi daa bëgg a bokk asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah bismillah bismillah Sow ñu ngi leen di ziyaara yal na yàlla nangu siyaar seen jox seen wàccuwaay jërëjëf jërëjëf saa boom yàggal taxawaay amin yaa rabbal alamin amin fay yiw yëpp amin yaa rabbal alamin amin yaa rabbal alamin ñi xamoon nekk ci émission bi yaakaar naa ne kenn duñu la alxames moom. ndeysaan. <laughs> daanaka daa bokk ci man sama dund man. ndeysaan jërëjëf. daanaka am na ñoo xam ne dañ suñ ndax dañu woote naa wala woote wu mag yooyu. ndeysaan. maa ngi ñooñu ñëpp di maa ngi jox ziar. Mhm. di leen jox seen wàccuwaay ñoom ñëpp. di laaj nag ay leer bëri yoo xam ne lu mu ci bëgg am leeral. Hmm. maanaam millions yi xam ne dañ koy denc. Hmm. buñ déggee maanaam soog am na. Hmm. wala léeg-léeg ñu dem def ko ca. te bu pare maanaam ñu naan dañuy woote ay budget ngir député ay ministre. Euh, bo te ñu jublu ay élection maanaam ñooñu bu yàlla defee tey teguluñ ci réew mi. maanaam bi yooyu ñu doon woote yooyu moom waa nan nan lay nan lay demee. Mhm. ma ciy sàkku leer lu baax nag. baax na jërëjëf. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax a baax ci duggam bu am solo boobu. jaajëfal mbokk mi di Galaye Sall mu ngi ci Grand Ali Sarr mi ngi ci Yoff ñu ngi ànd ak ñun jotaay bi. ñoo ngi leen di jaajëfal baax a baax tey rafetlu seenu àndin wi ànd ak ñun jotaay bi oustaz. Mhm. mbokk mi nee na ñi nga xamante ne fi mu ne ay ministre lañ wala yu demee noonu nga xam ne wate nañ seen i budget ba noppi. Mhm. te jëm ci élection. Mhm. nee na bu fekkee nag euh, dañoo noppe ci élection yi te ñoom toogaatun nan la ñuy def seen budget yooyu ñu wate woon. Ah, loolu kay. <laughs> état continuité la. jeex na état continuité la. ah oui. ku gàddu bor. Hmm. si di état. Hmm. boo fi jógee ña toog koy jël. dëgg la sunum réew rek ngay dégg ñu naan président bi fi weesu woon moo fi def lii. waaw waaw waaye nag loolu moom réew mee ko moom. waaw. Hmm. maanaam président Macky fi def lii. non président président la fi defoon lii. te doo dégg Senghor fi defoon lii. ñoom ñëpp boo moytuwul li fi Senghor defoon defoon guñ ko la. am déet ndax départ bi moomu woon mm-hmm. ginnaaw yàlla mm-hmm. ak école yeeg université yu bare bare bare bare ah? ba ñu départ mm-hmm. waaye fi ne doo dégg mukk loolu doo dégg mukk Abdou Diouf ba tey nag looloo continuer waaw président Macky fi def lii mm. président Wade fi def lii déedéet état bee fi def lii la ñuy wax rek waaw ndax kenn ku ci nekk bi ngay jóg li nga fi bàyyi woon bu dee bor kee yor mhm. bu dee kees kees ga lay jël mhm. bu ko defee ñu def euh, passation de service nun mhm. tam bu bu fekkoon am na it noonu rek lay demee tabarakàllah wallahu taala alam wa shukran ci laajam bu am solo boobu jërëjëf jërëjëf ci tontu lu am solo lii ñu ngi ko ciy jaajëfal mbokk mi daa bëgg a bokk asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah waaw ñoo ngi sant bu baax. maa la Abdourahman 97. Abdourahman na nga def. a baax. 97 bisimilah. anam ça va mu ngi si jàmm. ngi ci jàmm bu baax kay. Mbacke kii euh, euh, suñu waajoo dañ ko mujj a dégg kii xam lan fixe. kan la waaw moo fu ne. mi ngi fii dañoo gëj a ubbi fixe bi. waaw góor. ah gëj nañ ko dégg de. ngi woote de moom du dugg ful fixe. ah ndeysaan fixe relais dugg. waaw bu serveur bi amee problème rek nga dégg ko incha allah waaye mi ngi woote mi ngi ci jàmm nag. ah alhamdulilah comme mu ngi ci jàmm dafa baax na. <laughs> waaw bu ko ndax mu dugg nam nañ ko rek. Eh, waaw kon xëy na danañ ko ubbi. am na ko yore kër Baba Alimata moom tam. fixe rek waaw waaw. <laughs> waaw dañu doon siyaar rek Mbacke dañu doon siyaar. jërëjëf jërëjëf. ñu amoon benn question bu ñu bëggoon laaj Oustaz rek. waaw. Eh, ndax eh, yonante bi. sallallahu alayhi wa sallam. ndax nit dina ko gis jaaxaran. d' accord mu ni incha allah leeral. d' accord. Mbacke bu ma duggotee day léegi ci 97 bi 97 bi yombul de. d' accord 97 kon Abdourahmane 97. waaw yombul yombul yombul. yombul de baax na jërëjëf. xeeb moo ko de Mbacke. déedéet mu tax. aylahi boobu baa yem foofu rek. Abdourahmane jërëjëf ñu ngi koy nuyu bu baax a baax sëñ Abdourahmane soppe boobu nga xam ne nee na 97 la la dala topp. ba tey ndeysaan mbokk mi docteur Alioune Gadiagal tudd ma nga fële ci Sàngalkaam ak Sayar Kan nekk ci Kolobaan. ñu ngi koy nuyu moom it docteur jërëjëf di nuyu waa Sàngalkaam yëpp. wa waaye man ne Mbàkke bëgg na fàtt naa wax benn affaire. Ah. Euh, yaa ngi dégg communiqué bi ñu naan le 12. waaw. gàmmu ko daaru gay waaw sunu daar ji Alimran lañ ko tuddee. le bi. waaw waaw xanaa Sénégal yëpp daañu fa ñëw di incha allah. wax dëgg yàlla normalement fekk na fa sagalal na ko. normalement kooku xam naa dañuy bàyyi ba euh, ñëwaat ma xool. Ah, bii di ñëw du fekk la duus ñëwagul. ah kon baax ñu waxtaan ci lu yaatu nag. ndax loolu mat na ko incha allah incha allah ah waaw dëgg yàlla. <laughs> waaw dëgg yàlla ah, kon daara ji lañ ko tuddee. daara ji lañ ko tudde est-ce que. tey bëgg nu yóbbu fa gone yi. nu nu yónn fa fanaan fa ñu teral leen. macha allah. ah suñu door def waxtaan yaag yooyu est-ce que est ah, xam naa soxna ku ma jëb de lum kii kii dana fa ñëw nag ah, wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla loolu dama bisu daara ji la kon incha allah <laughs> eh, ñu jaajëfal la bu baax eh, xaar keneen ci ginnaawam ma nga ne la di ñëw bu ñëwee rek ñu dalal ko ci 88 628 98 98 33 841 22 33 salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah bismillah waaw waaw ñu baax ma ne leen dellu Espagne. naa koy ngañ naka waa Espagne. siyaare sëñ Aliou Sall. naa koy mbeng. ñu baax a baax nga ko jar baatu ngir ko jot wax nga dëgg wax nga dëgg. wax nga dëgg de. xarit maa ngi siyaare bu baax a baax lu jërëjëf mbeng. di ko déglu bu baax a baax. Mm. rajo bi yëpp tabarkalla. jërëjëf jërëjëf. yal na yàlla amin amin yaa rabbal alamin kontaan nañu bu baax a baax ci émission bi wax dëgg yàlla ñu ngi ko déglu comme ni ko mbokk mi waxee sànq rek ba ci may sa ndiggum ba ci yontu yàlla Souleymane lépp ñu ngi koy dégg ndeysaan bu ñu demul marché rek tabaarakallaa liñ koy faj duñ toog incha allah ba suba ñoo ngi koy déglu ndeysaan xam naa leen na leen réew mi may nopp xam ngeen xam ngeen toro li ko waaj waxee xam ngeen kat kon dana baax ndeysaan ndax réew bi yàqu ñun ñëpp xam ne Sénégal jaxasoo ndeysaan te wax dëgg yàlla man lay toujours dama koy wax gars yi dina rey may leen di dugg ma ci candidat yi kenn wax ne ko rey ñu rey te te nag maam waxoon te defuñu ko lii. Mhm. yaakaar naa Sénégal na te duñu ko jot. Mhm. dëgg la. ah métti na la. oui nee naa leen de ay ay suñu ko fàttali ko. la. da ko daan baamtu lool. kooku lu ma aati yamar saa ma ci fargal. wallaay ndeysaan. wax na ko ma tey. dëgg la xam-xam a na mu mhm. nañ ko ñëwoon na fi nag naka na fi ñëwaat na mu nañ ko lool lool incha allah mooy a baax yàlla mu leen yërëm yër la amin yaa rabbal alamin amin a yaa rabbal alamin jërëjëf jërëjëf sëñ bi palmu lay wootee ñu ngi koy jaajëfal baax a baax. palmu de Mallorca tabarkalla ca Espagne mbokk mi Ousmane Diop la tudd ma nga ca Nduloo di ànd ak ñu ngi koy nuyu moom it di ko siyaare di xaar keneen ci jotaay bi ci 88 628 98 98. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa bisimilah. Alaaji Mbacke ñu ngi leen di ziar. jërëjëf yal na yàlla nangu siyaar. ñu ngi leen ci jàmm bu baax. ñu ngi ci jàmm alhamdulilah. ah suñ coalition bi fayul de koro maa la dégg nga ci wax mais fayul de. ah mooy coalition banati. Ah. <laughs> bi. ah boobee maa ngi leen di nuyu. ah fayul de fayul de. <laughs> kon baax na. mais leen doon jaajëfal rek. jërëjëf ah, jërëjëf. di nuyu bu saaf su bëree bëri. jërëjëf kan la. Góoru Caba. Góoru Caba waaw nii la. <laughs> ak borom tigi nag dali foor ak. jërëjëf jërëjëf ak ñaag. bi ak ñaag. <laughs> jërëjëf Góoru Caba góoru jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax a baax te di ko dokkeel. mbokk mi mi ngi tudd Moustapha Diop mi ngi ci Thiaroye sur Mer Pape Sey nekk fële ci université bu Ndar di ànd ak ñun jotaay bi. ñu ngi leen di nuyu baax a baax a baax Pape Dieye nee na mi ngi ànd ñun jotaay bi <laughs> Pape Dieye nañ la. kon nag baax na tubarkaal la ñu xaar keneen. xalbu wa nuurun wa raxma jalla baarin zul jalaal yaa Muhammad yaa Muhammad kunte biibi waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jàmm rek kay waaw man maay la passionné man maay passionné ci astronomie quoi ah d'accord waaw ba keroog euh, semaine bële. waaw daa am daa am auditeur bu laajte woon naan ay euh, yonent bi di ñaan dafa dépassé woon étoiles yi. Mhm. affaire léegi euh, ba selon la science nii quoi nga xam ni ay sonde la ñuy yónnee ak ay télescope la ñuy yónnee ñu dem foofu dem par exemple dem ci asamaan ak yooyu quoi. Hmm. léegi lu ñu étoile dafa nekk en surface. amul daa mel ne daa bi mooy daw de réseau bi moo. comprendre étoile yi moom waaw mu ñëw. waaw c'est léegi waaw. voilà ma ne étoile yeeg planète yëpp dafa nekk en suspension maanaam taxawul. ci mhm. quoi dafa dafa nekk mel ni comme luy lang quoi. Mhm. noonu la demee. Mhm. léegi par exemple. dama joxe benn exemple tey. xam nga euh, yàlla dafa def benn loi physique quoi. amul lu gën a gaaw lumière maanaam lumière bi il court à trois cent mille kilomètres par seconde. maanaam. Ah, fii ba àdduna tukki amul lu gën a gaaw lumière quoi. Mm-hmm. léegi ñun par exemple ñun tey su doon dañu war benn Boeing buy jar euh, kii Boeing buy daw six cent kilomètres à l'heure mm-hmm. pour ñu àgg ci jant bi rek il faut ñu def vingt huit ans. Mm-hmm. pour ñu dem ci benn planète bu tudd Platon nga xam ni mu ci système solaire bi kese di àggul ci yeneen kii yi. Mm. il nous faut mille ans suñuy daw six cent kilomètres à l'heure ci benn Boeing. Mm, ok te imaginez yonent bi dafa génn ne univers. parce que yonent bi fi mu nekkoon nit warul mën nit waru ko mën xam quoi. Hmm. parce que yàlla su la nee bis su nee alhamdulilahi rabil alamin ah moo gars yi fatiha suñ suñ suñ taxawoon alhamdulilahi rabil alamin nag maanaam ci yàlla xam alamin mooy univers bi quoi suñ taxawoon di jàngat univers bi rek mun. Hmm. am na solo donte mujj na dagg waaye indi na njàngat mu am am solo ci wàllu science. waaw la ko sunu borom waxee rek moo tax mu wax ko subhaana lasi asra bi abdihi. Hmm. loolu rek foofu rek la wax ji yem tabarkàlla. wallaay ndeysaan mbokk mi madame Badiane la tudd mi ngi ci benn te sa Sanjiri Diop nekk ci Bastos di ànd ak ñun jotaay bi. ñoo ngi leen nii ñoom ñëpp te di leen siyaare baax tey bi ci duggam boobu euh, Abdourahmane laajoon na ab laaj oustaz 97. Hmm. ne woon na ndax yonent bi alayhi salaatu salaam dees na ko gis jaxaran des na ko gis jaxaran ndeysaan des na ko gis des na ko gis ci gént mm-hmm. waaw sëñ Mbàkke foofu day roq bu xóot mm-hmm. mooy ndax yonent bi alayhi salaatu salaam dafa génn àdduna mm-hmm. comme ni nit ñi génn àdduna lan mooy ruux lu tax mu ne ku julli ci moom ñu delloo ko ruuxam mu fay la yooyu day waxtaanu mag waaw waaye lu am solo la moo tax ñiy wax ne gis nañ ko susaluñ ko waaw sallallahu alayhi wa sallam mhm, ndeysaan kon dañ ko gis jaxaran dëgg la allah tubarkàlla am na solo oustaz jërëjëf ñu jaajëfal ko baax jaajëfal la xaar keneen asalaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah bismillah bismillah oustaz Mbacke waaw na ngi siyaar ça va gasama na nga def sant ziar alhamdulilah mi ngi fi mi ci jàmm. gasa mu wax sa xalaat. Thiès waaw moom la waaw. <laughs> ndeysaan. Saliou waaw sa bés boobu yàlla na ko yàlla def barke waay. amiin. ba ñu teg dàmm ak salaam. amiin te ñëpp ñëw. waaw ñoo ngi déglu Paa kii. alaaji alaaji ndo alaaji ndongo li ñëw. waaw waaw. tubaarkàlla ñëw. <laughs> Mhm. man nag am na lu ma xawoon lënd tuuti. Mm-hmm. Uh, maanaam suñu njiit yi nga xamante ni tey li ñu ñun ñun daanaka dañ leen di xay. waaw ñuy liggéeyal askan mm-hmm. nga xamante ni li ko dale président ba ci institution yi nga xamante ni moo ci réew mi. moom yoo xamante ni dañ ko tuddee caisse mm-hmm. ñu koy génne di ko teg ngir fi mu toll nii njiit li ni moo jiite institution boobu. di ci faj ay soxla. Mm. alal jooju dafa war a dem ci askan wi. Mm. wala maanaam lépp lu ci def ci loo xamante ni ma. ëllëg mën na cee am diggante ak boroomam. Mhm. beneen bi xisee maanaam Umar bun Xataab. ñi mhm. nga xamante ni saaba bu mag la woon. Mhm. bés dégg naa am na yëre yu mu doon séddale. ah ñoom doon séddale yëre yi nag ku ci nekk sa yëre jotul woon. moom yëreem jot sëkk. ñu mu jiite woon ne ko lu tax sa jot mu ne loolu nañ ko laaj. Euh, Abdoulahi Ibn Omar. Hmm, waaw léegi nag maanaam xisa boobu tamit bëggoon naa nga leeral ñu ci diggante saaba yi ñoom nga xamante ni ñoom nekkoon na ay homme d'état. Hmm. doon séddale séddale yu maandu ba pare di àtte àtte yu maandu. Hmm. yi nga xamante ni ñun daanaka dañ koo importé ci bitim réew. man yàgg naa wax ni fi mu ni am nañu suñu indépendance ci forme. waaye fond bi amuñu ko. ndax suba est-ce que responsable la ci ki nga xamante ni yàlla def ko li war a tënk mooy diine ji nga xam te ni moom la suñu borom wàcc moom roy loolu Muhammad wa sallam mhm. ëllëg est-ce que ñun responsable lan ñun ñi nga xamante ni institution yi ak constitution bi nga xamante ni moom lay dund yàlla maam sant ñu ko ñu ciy àttewoo léegi nag loolu moom lan moo ciy àttel islam ñun ñi nga xamante ni ñoo ngi ci réew mi di àtteloo àtte boo xamante ni ah suñu borom fi mu toll sant ñu ko mhm. loolu daal bëgg naa nga tojal ñu ko di la sant di la gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu waaleykum salaam wa barakaatu sëñ Gassama ñu ngi ko nuyu baax a baax mbokk mu ngi tudd Penda Sarr gay ma nga ca Kasna Kaolack kii tudd Daouda Fall nekk ci Thiès di ànd ak ñun jotaay bi. ñoo ngi leen di nuyu ñoom ñëpp tey bëgg ci seen dugg yu am solo yooyu gasama oustaz indi na eh, ab laajam bu am solo boole kooku mm-hmm. njàngat moo xam ne mi ngi dellu ci réew mi ak aw doxinam. Mm-hmm. nee na daal bu fekkente ne eh, ki jiite réew dañ koo jox ay moyens jox ko ay jumtukaay waaye nag mu def ci ay yëf yoo xamante ne xëy na du farata. Mm-hmm. yu demee noonu ndax loolu eh, da ci am ëllëg responsabilité ñun ñu ko dénki ndax dañ ci am. Ah, responsabilité ah niñ ko joxeel sëñ Bakke. nu kees gi tudd. kees noire. kees noir. noir noir def naa mooy lu ñuul. waaw lu ñuul. kees noir li muy tekk mooy kees googu yoonu kenn ko ci. kenn du ko xool. kenn du ko xool. nga xam ne ñun ñoo ko yoonal dëppoo ci loolu. waaw ne ko weeru dee dañ la ci defal nangami milliard. waaw. wala at mu jot. at mu jot waaw defal ko ko ca nag ne tekk. at mu jot waaw. su ko neexee dalal seen Mbàkke si la jox ko ca deux cent million mm-hmm. mm-hmm. ah. Mm-hmm. te du am facture. du am reçu du am dara da koy tegg jox la nga dem. donc kon kay moom ginnaaw ñoo ne ko yaa moom kees gi loo ci neex defal kat wax dëgg yàlla duñ ko contrôler léegi nag su boobaa su borom moom tam ginnaaw ñoo ko may mu ne nangu nag ñu may ko ko mm-hmm. Mm-hmm. waaw waaw tarkalla incha allah est-ce que muy lu am solo ñu jaajëfal ko ci baax baax ci duggam bu am solo boobu ak commentaire yoo am solo yooyu mu indi oustaz ñu ngi ko nuyu waa Thiès yëpp rawatina ndongali alxaaji tubarkalla mbokk mi daa bëgg a bokk asalaamaaleykum waaleykum asalaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bismillah bismillah Alaaji Mbàkke maa ngi leen di nuyu di leen di ziar yaa Oustaz Alioune Sall. jërëjëf ñu ngi lay fay nuyoo yal na yàlla nangu ziar. seen mbokk seen xarit seen sopp Ibrahima Seck nekk fii ci Thiès. Ibrahima Seck waa Thiès. gëj woote waaye mosuñu wuute. jàmm rek kay. leen def ak ñu ngi sant rek alhamdulilah. mbégte rek ak kontaante sant leen gërëm leen. jërëjëf. ñaanal leen tawfiix sutura àdduna ko yàlla boole. kat man ngeen ñaan jar ngeen ko fi ngeen ñu féetee yaatu na bëri na yàlla leen ko suñu borom féetee. amiin yaa rabbal aalamiin. yàlla ñi ma tuddee na seen suñu sofee ci yéen moom macha allah koy na suñu kii. Hmm, jërëjëf. am loo xam ne mënuñu ko ci la mi waaye lii sa xol doon taarkal ko séenee ci télé du ma dem dul dafa àggal li muy wax. ndeysaan <laughs> ndeysaan. waaye it ñoom yàlla jàppale. jërëjëf amiin yaa rabbal aalamiin. réew mi nag yàlla ci yàlla def jàmm. amiin amiin yaa rabbal aalamiin. yàlla def sutura. amiin li ñu tëg ma di élection yi liñ ci tiit yàlla nañ ci suñu borom musal amiin yaa rabbal alamin ci barke yonent bi sallallahu amiin amiin yàlla leen yàlla sàmm sàmmal leen seen njaboot amiin amiin fépp fu julli nekk surtout nga Sénégal yàlla yàlla dafa sa capp amiin amiin yaa rabbal alamin ñu ngi nuyu kilifa ji ni yëpp <laughs> jërëjëf ñu asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. aleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatu. ñu ngi ko nuyu baax a baax di mbokk mi di Anta Wade. doom la ci Daawuda Wade ci Thiès kii tudd Cheikh Tidiane Guèye mi ngi ci ñetti mbaar. ñu ngi koy nuyu ñoom ñëpp te di leen siyaare bu baax a baax euh, euh, mbokk mi indi na ay siyaareem ak ay nuyoom jot indi ab laaj. ñoo ngi koy fay nuyoo tabarakallahu di xaar keneen ci ginnaaw. wajuwa badurun munawwar. kalaman ansa Mouhamadou Mouamar Ndiaye mi ngi ci xombal di ànd ak ñun jotaay bi wal jabinul barqu yalma waa Mbour lee ñu kontaan ndax bagage yi ñëw na mi ngi ci aéroport bi tabarakallahu ngeen ñu am ni ngeen ñu daan amee incha allah. Moustapha Sall tabarakallahu jaajëf. Ablaye Faye mi ngi ci Kaba di ànd ak ñun jotaay bi. Ousmane Dia Ousmane Dia professeur la bu mathématique nekk fële ca CEM bu Pout. minuit cinquante sept moo jot fii ci Sud FM seen rajo. kon nag am na mbokk mu ak si Hadj Mbacke ne ko. ñu dalal ko asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. bisimilah bisimilah yaaram. kooku Alla waaw. waaw ñu ngi lay nuyu di la ziar. jërëjëf yal na yàlla nangu ziar. Ah, di ziar suñu Oustaz jërëjëf. Ah, waxtaan bi neex na trop ñu ngi koy lu bu baax. alhamdulilah. waaw ah, ñu bëggoon indi suñu laaj bu gàtt rek ci ala ya rasulallah ya afradal wara mhm. ñu bëggoon Oustaz leeralal ñu ko. d'accord. ak suñu laaj bi est-ce que nit buy julli sujjóotam bu mujj mhm. mën na ci jàng rabbana atina fi dunya mhm. xasanatan wa fil axira d'accord wala buy taayee rek la ko war a jàng jërëjëf waaw maa ngi leen nuyu di leen siyaar mhm. jërëjëf jërëjëf mbokk mi ñu ngi koy jaajëfal baax ci duggam bu am solo boobu. jaajëfal mbokk mi di Demba fay ma nga fële ca Sabadola di ànd ak ñun jotaay bi malik caw ak soxnaam Alimatu ñu ngi ci Tëngéej di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf oustaz mbokk mi nee na alaa yaa rasulallahi yaa afdalal wara la bëgg nga ñëwal ko ci. faxanaanu fii di wallaay ndeysaan. maam Cheikh Alhaaj la taalibe yi ñëwoon. Mhm. ne ko kat dañuy def bu ñu defee nangam tubaab bi def nu nangam. mu ne nan ko nan ko nan ko diis yonent bi mu diisal na ko yàlla est-ce que moo tax mu defoon xasida gu alaa ya rasulallah ya afdalal wara ndeysaan fa nahnu fi dayqin walam narju farija ndeysaan ba xasida ga jeex tarkalla wa shukran ci laajam baam sala boobu jërëjëf nee na ndax rabbana aatina fi dunya xasana nit ki bu nekkee ci julli ba sujjóot da ko fay ñaan wala. Euh, kon mu jàngal xoraan ku sujjóot du jàngal xoraan ku rukkoo du jàngal xoraan. Mm-hmm. day sàbbal yàlla borom subhaanahu wa taala. Mm-hmm, mm-hmm. wa shukran. jërëjëf ñu jaajëfal koo xaar keneen. sopp yoneen loxo ca ko sunu soppe ba sang baa yonen ku mu jaral loxo ca kaw sunu soppe ba sang baa nge waaw sang baa ngi kii daa bëgg bokk ñu dalal ko asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Mbacke maa ñëwal waaw man la Aliya Aliya na nga def waaw di gën a oustaz li mu tontu ci tubaab yi uh-huh. man par exemple benn exemple laa koy wax xam nga man nekkoon naa sali ci tubaab yi waaw doon liggéey ak ñoom uh-huh. damay toog di leen bett ñuy wax ci sénégalais yoo xam ne. Hmm. Afrique Afrique Afrique boobu. dañuy hmm. wax africain yi. Hmm. amuñu lan la ñuy jàppee. ay limam. limam. waaw xam nga limam boo ko utilisé rek kay peccal ba mu jeex nga saa dina xotti. waaw. <laughs> tubaab bi loolu la ñuy jàppee. ñu ne ñun limam lañ. waaye man ne woon naa si ñoom. bi mu waxee loolu xam naa ci laa gëj a nekk ci moom parce que damaa keroog daal ci kaw. deuxième fois bi mu ne ñun sénégalais la moo tax ñun fon fekk. mu ngi allahu akbar di julli di gën a arrière. Hmm. ma ne ko loolu yéen yéen ñu ko teg <laughs> parce que bu ñu waree avancé ngeen jël ko xoom yëpp duñ réaliser fii ngeen jël ko dem yóbbu ko Europe. Hmm. daanaka fii yéen yéen fi yëpp ay actionnaire. Hmm. waaw moo mu xamal ne Sénégalais nan mooy ko tubaab bi parce que tubaab bi su nekk di yor xeex wu ñu suñu kaw la ñuy jaar def. ndeysaan lii nag ñoo war a def ñoo ci war a def suñu bopp. ndeysaan waaw. yi ay ressources minières yu ne ñu fi ay phosphate or beeg lu ne moo fi jóge dem Europe ñu koy utiliser ñëw di ñu ko jaayaat. ñun nag ñoo war a yeewu. jërëjëf waaleykum salaam wa rahmatullahi barakaatu jërëjëf dugub bi am na solo yaaram mbokk mi mi ngi tudd Ousseynou Ndoye mi ngi ci Arafat 2 ci Tëngéej kii tudd Nogay Diagne nekk ci Meewaan di ànd ñun jotaay bi jërëjëf sëñ Aliya ñëwaat na Oustaz indi rek ay jeexital ak ay commentaire ci waxtaan wi rawat na ci tubaab yi ak seen taxawaay ci nun waaw waaw nun de sëñ Mbàkke nun na rek nun nun na rek <laughs> yaa ngi fi amoon jamono yële waaw ay entreprise ay société yoo xam ne yu mag lañu woon jenn waaye nan fuuf la nekkoon ca kees ga dëgg ñu dàq ñu doon liggéeyal tëj bagage ya bàyyi ko mu ne léegi mën ngaa toog fii di ci lim ba ci fukk ak juróom-ñaar kon comme nun noonu nangoo nekk limon waaw yi nal nu lu loolu rek la paccal ñu bañ jeex pajal ñu bañ jeex <laughs> Euh, Thomas Sankara dégg nga xutba discours am doon naan def ba mu ca noppee la mu wax. Hmm. daanaka noonu la demee. Hmm. waaw nun africain yi am nañu marché sunu marché bii noo ko moom. Hmm. nan ci yóbbu sunuy bagage jaal ko sunu bopp. nan ràbbal sunu bopp li ñuy li sol jënd defaral dàll sunu bopp sunuy di bopp waaye ba mu ca noppee dégg nga ko. tabarakàlla mbokk yi bëgg a bokk. ñu jaajëfal ko te dalal ko asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah bisimilah. jërëjëf jërëjëf yal na yàlla nangu siyaar. ñu kontaan bu baax ci ñaanal ustaas. alhamdulilah. kontaan bi mu tontu waa ji doon laajte ndax yeneen yi mm-hmm. waaw tontu yi moom macha allah kontaan nañ ci bu baax. jërëjëf. bu amoon lu raw gis sax dinañ ko ko def incha allah. ndeysaan. wax a taxaw mm-hmm. a gis ko wax ñu gis ñun. ndeysaan waaw jàng yi bëri daal doy waar hmm? koo jàngal si jot ak koo jàngal kaamil bi dama ko koo gis ko moom macha allah son nañ ci trop hmm. ko jërëjëf ñooñu ko daal trop tubaab yi nag dañ leen wax ni leen yaakaar naa budu hmm. ñoom ñu joxoon ñun ñu war yaakaar na saa yu ne rek loolu doom ñu moo dox seen digg ñoom moo tax daal foog ñu góorgóorlu bu baax. loolu hmm. daal laaj oustaz euh, ay di nekk ci suñu kiyaas yi. alyawma naqtimu ala afwaahihim wa hmm. tukallimunaa aydiihim wa tashhadu arjuluhum bimaa kaanuu ya'maluun. ndeysaan. loolu bëggoon naa ko saa tëjee ma ko. d' accord. maa ngi koy bëgg si yëpp incha allah. jërëjëf jërëjëf Moussa Feng kii ñëw léegi ñu ngi koy jaajëfal baax ci duggam bu am solo boobu jaajëfal mbokk mi di Doro Sylla ma nga fële ca Paris mbokk mi Bintu solo Ndong la tudd waaye waxul lu adresse am mhm. ñu ngi koy jaajëfal baax a baax te di leen nuyu sëñ Doro jërëjëf ñu ngi koy nuyu baax a baax euh, mbokk mi oustaz ci suratu yaasin la dem moom indi fa aaya ja mooy aaya 65 mhm. al yawma naxtimu ala afwaayihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yaksibun waaw waaw sunu borom da ba ñëwee yomal xiyaam euh, Iblis dafa samp benn turbine. Mm-hmm. def fa discours bu saf-sap mm-hmm. inna allaha waadakum waada alxaq mm-hmm. wa waadtukum fa axlaftukum fala taluumuni wa luumu anfusakum wallaay ndeysaan waaw wallaay ndeysaan yàlla li mu leen digoon mooy dëgg man li ma leen digoon dara du ci dëgg ma jëli leen ca la yàlla digal mm-hmm. leen ci li ma leen digal wallaahi ngeen am ñàkk fayda ak topp ma fa laa taluumuunii bu ma fi kenn wax dara mm-hmm. wa luumuu anfusakum ku am lay wax wax ko sa bopp mm-hmm. maa ana bi musriqikum wa maa antum bi musriqiya wallaahi ndeysaan waaw tey mënulu ma leen mënu leen ma tus may mënulu ma leen dara nun bokk rek nañ sawara wi nu borom ci la waxoon alam ahad ilaykum yaa bani adama laa ta'budu shaytaan wallaahi ndeysaan ba nit ñi jabutu nag mbàkke ku nekk naan fii la xarjaan suñu borom ne gémmiñ a tej escorté ko waaw al yawma mu ala afahim ñu kaste gémmiñ ñi nag wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bimaa kaanu yaksibuun wallahu taala alam wa shukran ci laajam bu am solo boobu jërëjëf Oustaz ci tontu lu am solo loolu ñu jaajëfal ko te xaar keneen xaar keneen tabarakallahu ko demoon na bay ñëw waaye daf mel ni dafa dëpp habibi mel na ni agsi na ne ko ñu dalal ko asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah waaw bismillah alaaji Pape Mor naa def naa la dégg mbaa yaa ngi ci jàmm moom na ci jàmm macha allah alhamdulilah na ko foofu mbaa lépp jàmm lépp jàmm alhamdulilah tabarakallah ana mbokk taalibe yëpp ñu leen ziar bu baax waay jërëjëf ñu ngi fi ñu ngi ci jàmm naka waa Sappo di leen nuyu di leen ñaanal jàmm di la wax sukkuram ci wasaawaay. jërëjëf jërëjëf. macha allah macha allah barakallah. jërëjëf jërëjëf ko fiik waaw ngi nuyu Sall alaaj Aliou alaaji Aliou Sall ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. jërëjëf mi ngi lay fay. di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal xewal bële bële. jërëjëf liggéey bi. ñu ngi leen ñoom ci kawam ñoom ci kawam léegi. Mm, alhamdulilah naka soxna fee xale yi. ñu ngi fi ñu ngi ci jàmm moom sax mu ngi ñoo na. ñu ngi Sénégal ngi koy nuyu baax te di ko dalal jàmm kon. incha allah macha allah jërëjëf waaye mi ngi lay nuyu bu jërëjëf jërëjëf bisimilah. ñoo ngi nuyu alaaji ustaas Alioune Mbaye ñu ngi koy ziar moom baax a baax. jërëjëf ngi lay fay. ñoo ngi nuyu bi ak ñoom ñu ngi lay fay bu baax a baax. jërëjëf hmm, bisimilah alhamdulilah ñu ngi sant bu baax a baax kay. waaw maa ngi nuyu mbokk yi ci FM yëpp yi nekk ci diaspora ñu leen ñu ngi lay fay baax a baax. di leen ñaanal jàmm soxna Ndeye Camara ñoom El Hadj Pape ñëpp ñu ngi leen nuyu ak ñoom Doro Sylla. ndeysaan El Hadj Babacar ñoo ngi leen di mm, fay baax a baax a baax. ah de fàttali ñu kenn suñu asmaalik Omar Ndiaye xam naa ne leen di dugg incha allah. xam nga da laaj rek tuuti ci sooratu Maïda. sooratu Maïda waaw. bu ñu waxee way ay yaakaar naa soixante la. way sa jaakum xaalu amanaa wa qad daxalu bil kufri wa hum qad xarajoo bii. wallaahu aalam bi ma kaanu waaw moom ci jëlee xul àllu nafikum mooy bopp aaya bi yaakaar naa. d' accord. jërëjëf Oustaz Mbacké kontaan nañ ci bu baax a baax di leen ndamoo di kontaan ci yéen jërëjëf jërëjëf. ñu ngi leen ñaanal jàmm di ko ñaanal mbaa Sénégal di ko ñaanal adduna bi yëpp. asalaamaaleykum wa rahmatulah. amiin amiin yaa rabbal aalamiin jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax a baax ci duggam bu am solo boobu. waaw tabaarakallaah jaajëfal bokk mi itam di Pape Diop photographe la fële ci yëmbal Moustapha Badji mu ngi ci kondaam ci Kaolack di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf ñu jaajëfal ko ay jànkee surat almaida aya 61 lay tollool borom bi di wax wa ida jaaukum xaalu amanna wa xad daxalu bil kufri bi mhm. wallahu aalamu waaw mhm. boobu mi ngi wax ci naafiq yi nga xam ne ñoo ngi yonente baa dëkk mhm. mu doon liggéey ci ñoom di liggéey ci kuffaar yi di liggéey ci musirikoon yi di liggéey ci mu'minoona yi sëñ Mbàkke yal na ko yàlla fayal amiin yaa rabbal alamin yàlla nag di wa di wane benn group mu ne group boobu wa isaa jaa'ukum qaalu amanna buñ agsee ne gëm nañ waxaat daxalu bil kufri bi ñuy dugg si ay yéefar lañ wa hum xarajoo bi bi ñuy génn di yéefar lañ kon kañ lañ fi nekkum jullit waaw mooy diiru liñ toog ci yow biñ toogee ci yow daal naan gëm nañ boobu bu dee gëm nañ booba rek lañ bokk <laughs> waaye bi ñuy dugg yéefar lañ bu ñu génn yéefar lañ allahu akbar nga xam ne diir biñ toogee ci alayhi salaam mm-hmm. daal mm-hmm. jàpp nañ ñoom ay jullit la <laughs> waaw waaye bi ñu dugg si mm. kafaru mm-hmm. bi ñu génn kafaru kafaru ah, wala alama bi ma yaktumun li ñuy nëbb yàlla moom xam na ko allahu akbar wallaay xam na ko xam na ko de mu ne wa tara kathira minhum yusaari'una fi na ithmi wal udwan wa aklihimu suht ba leen gisee sawar mooy lekk lu xaraam rekk ak luy def bàkkaar ak noono wallahu taala alam wa shukran ci laajam ba am solo boobu jërëjëf ci dugg ci tontu lu am solo loolu ñu ngi ko ciy jaajëfal te di la jaajëfal di xaar keneen accident. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. Sass Mbaye Sylla ñu ngi leen nuyu bu baax man la Mouhamed Diaw di woote Fass Mbao cité Mandela. Mouhamed waa Fass Mbao. a baax. Mm, jàmm rek kay bisimilah. waaw man ma doon laaj dañ yow Mouhamed Diaw dem na ñu ngi koy waat te di ko xaar mu ñëwaat ci. incha allah ginnaaw dese nañu vingt minutes mën naa am dana duggaat. incha allah mbokk mi Cheikh Diane Baro la tudd mi ngi ca Ziguinchor mbokk mi di am na ñun jotaay bi. ñu ngi leen di jaajëfal ñoom ñëpp wee di xaar mbokk yi ci 88 628 98 98. am na ko nekk nii ne ñu dalal ko asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. bisimilah. waaw yaaram. Seexuna si la Colobane. sëñ Seexuna na nga def. ñu yàlla bu baax. si la jàmm rek. waaw si la Moxtaar di siyaare di nuyu al imam Oustaz mi ngi lay fay. di siyaare Alioune Mbaye bu baax mooy. jërëjëf jërëjëf. di rafetlu jotaay bi ni muy doxee. jërëjëf. di wax ne amati na solo lool. alhamdulilah defe naa démb maa ngi am ku ma gis mu ne yéen bokk kër. wax nga dëgg Baye Jalle. Baye Baye Modou Baye Modou. def Baye Modou Dia waaw. Mhm. ma koy wax. maa ngi koy nuyu bu baax baax. waaw mooy ñu ngi koy delloo nuyu bu baax di rafetlu ni ngeen di doxee. alhamdulilah. wàccaay gàmm bi damaa waxoon ne euh, euh, gàmm bi daal ak bi daal moom dootuma ji. <laughs> waaye ndax dana gis ngeen dëgg dañuy gis tamit. waaw daanaka ci dugg yoo xam ne ñun benn euh, ñaari imaam yoo xam ne daanaka def nañ ci lu mat ñaari waxtu te mënuñ ci jugoo. Mhm. loolu tamit oustaz jëlee ko ci. ndeysaan kon nekkul sama problème. Mhm. di wax ne benn laaj laa indi mhm. muy dama doon déglu benn waxtaan bi suñu Abdou Cissé Al mhm. mu wax ne ndaw ñi na jàng ba am xam-xam soog di liggéey. na ngeen liggéey ba am ba am ba am ba am wërsëg soog takk soxna. daana ñett yi nag bu ci jiitu rek mën naa indi gaal ay gaal ay gàllankoor ci yéen. ndeysaan ma bëggoon na ko saa jëkk jëmmaa da ko tegal wax ji. Mm-hmm. ñu ngi ma ci dégg dégg bu gën a suuxal dégg dégg ak ñuy déglu. macha allah. di ñaan suñu borom defal leen tawfeex ak mm-hmm. ñu ngi bàyyi xel bu baax jërë ngeen jëf. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax te di ko nuyu di nuyu mbokk yi ànd ak ñun jotaay bi yëpp. mbokk mi kër Diakhoumpa mu ngi fële ca Tëngéej ci soxna Khady Ndiaye nekk ci Louga di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf Babacar Diakhoumpa fixe ki la doon laaj kon yaa ngi wokk <laughs> ndeysaan mbokk mi Oustaz ñu ngi koy jaajëfal baax a baax nee na euh, moom Sëriñ naa dafa seetaan benn vidéo boo xam ne Sëriñ Abdou Aziz Sy Al Amine yal na yàlla yokk ko yërmande moo cay wax. ne daal ci wàllu takkum soxna mu ne ndaw ñi wut leen liggéey ba am ko. Euh, ba jàpp ci dara door a takk soxna. Mm. lu ko mooy bu ngeen fi jiitalee takkum soxna euh, mën naa indi ak soo gi ñaagaan. Mm-hmm. mu ne daal loolu la bëgg ngay jàngatal ko yow nooy déggee wax jooju. waaw ñetti yëf la waxoon. Mm-hmm. ba xam. Mm-hmm. ba am. denc jàng ba xam liggéey ba am daal di door a am jabar mu ne boo jàngee ba ba xam boo jàngee ba xam ni ngay téye li nga am da ko xam ni ngay téye ki nga takk da nga ko xam du dëgg dëgg la mu ne boo liggéeyee ba am te jàngoo doo mën a téye li nga am doo mën a téye ki nga am mu ne boo jàngee boo boo boo jàngee ba noppi te liggéeyoo hmm. mën ngaa am ci nga am hmm. waaye doo ko mën a yore li nga am dëgg la waaw noonu la ko liñ eh, fànceloon ca jotaay bu solo bi rahmatullahi alayhi wa radi anhu ñu jaajëfal ko baax a baax sëñ seexu naa mbokk mi daa bëgg a bokk asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu bismillah allo Oustaz Alaaji Sëriñ Mbàkke Sylla waaw Ndiir waay maa ngi leen di ziare di jiital professeur jërëjëf te la ci teg. tubaarkàlla. di ziare Saliou Sow al Bidaya. ndeysaan. di ziare Pape Mor Diaw Japon. mu mhm. génn léegi. ndeysaan. di ziare Pape Ndiogu Sall Suède. Mhm. di ziare Oustaz Dora Sylla Paris. ndeysaan Omar Ndiaye Angleterre. Mhm. ak sama Oustaz di Mbaga Ouma Kaolack. ndeysaan di ziare nag sama mag joo xam ne mi ngi ginaaw ndeysaan gane si woon ñu fan yi yàggul noonu ci ginnaaw. Mm-hmm. bu ko Samb seen auditeur bu mag a mag la macha allah ak njabootam. ñu ngi koy nuyu bu baax a baax mm-hmm. wax ni toll nañ ci semaine yoo xam ni. Mm-hmm. Sénégal ñu ngi jëfandikoo ñett. mooy eh, fasaad ak israaf ak tabzir. mooy wàllu yàq yooyu yëpp di ay ay xeetu yàq. ndax itam mooy yàq koo xam ni moom yàq jikko la. suñu borom nee na wa ahsin kama ahsana allahu ilayka wala tabghi fasada fil ard hmm. inna allaha la yuhibbul mufsidin suñu hmm. borom subhaanahu wa mu li wax lii dafa mel ni bu dee ci moom ci suñu moment yi ñu toll la hmm. nga xam ni dañu wax ay réveillon diggante vingt quatre décembre ba trente et un décembre jëm premier janvier suñu borom subhaanahu wa doon wax mbiru xaaruna te waxaale ko ñëpp muy na ngeen rafetal rafetalal yàlla rafetal jëme ci yéen. Mm. te bañ a tasaare ak yàq ci kaw suuf. Mm. yàq moom boo ko seetloo fi mu ne nii yàqub jikko maar bi taal muy musique yeeg baal yeeg di doy yooyu waaye boo seetee aussi ci fan yi li suñ borom di wax ni kulu wasrabu wala tusrifu innahu laa yuhibbul musrifin mooy israaf daa bëri lool mooy yàq goo xam ni maar bi taal yi ci wàllu lekk ak naan waaye wàllu pétard pétard yi nga xam ni eh, ëpp na liñ ci yàq ci xaalis te hmm. yàlla xam ni ku am xaalis sax war ko yàqu xuma naa ko dëgg dëgg dëgg amul ñoo ñu am hmm. eh, am na mel ni réewum arab ci at yee defaroon na benn pétard wala jëndoon na benn pétard boo xam ne ay milliards la ko jënd maar di taali hmm. daal di koy yàq noonu rek te mënoon a dimbali ay mbokki jullitam bi ci des mooy pasar pasar wala tu bazir tabzira inna al-mubazirina kaanu ikhwaana shayaatiin wa kaana shaytaanu li rabbihi kafuura mooy pasar pasar. kon balaa ma ne bu leen di pasar pasare li ma leen war sëgal. nee na ñi pasar pasare ma leen war sëgal ñoom mbokki seytaan yi lañu ne te seytaan dafa weddi yàlla. sàmbake jamono yi ñu toll nii. dëgg dëgg dëgg dëgg e, pasar pasare gi ëpp na ak yàq ji. waxumal dara mais tiital gi ñu tiital doomu aadama yi sax mën naa indil nit feebar. gis nga am na ay pétard yu xale yi defaral seen bopp gis nga lii ñuy lii ñuy reye yooyu bu jeexam la ñuy jël def ci gazu soudeur yi buñ ko taalee fii day mel ni bomb bomb la maar di taay loolu njaboot gu ne war na ko jéem a tere e, war na ko tere tere njabootam hmm. njaboot gu ne war na ko tere njabootam yàq gi itam yonente bi sallallahu alayhi wa ba ci jàpp sax ndox mi ngay jàpp dafa wax ni bul ko yàq ndax amoo ci sañ-sañ waroo ko yàq bu ci def nag mooy mbokk moom li muy laaj ñu bëri di ko laaj ci mbiru suñu borom subhaanahu wa taala nga xam ni mbiru xaybu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee nañ rañaanam gi ba mu demee ba delsi fa mu tëddoon nam tànge woon daa tàng ba nopp bare am na kaas bu mu feloon ba mu demee kaas ba jeexagul mu delsi waat loolu mbiru suñu borom la subhaanahu wa taala ki yor xel muy mbindeef doomu aadama mooy calculer temps mais ki moom temps moom moom moom temps mhm. mooy ci temps nu mu ko neexee sax ndaxte dañoo xool suñu portable yi. te dañuy am sa portable waxuma li ci biir de technique bi pour defar ko waaye sax jëfandiku taay bi rek. bouton yi am na ci yoo xam doo doo ko ba sànni ko. doo ko jëfandikoo ba sànni ko doo ko soxla léegi nag mbir yàlla ñu bëgg ci aventure bu laaj nu mu ko defee. Eh, suñu borom subhanahu wa taala boo xoolee ñaari mbir muy déglu la ak mbir seytaane. xam nga ba dem ci alxuraan ay plusieurs nett li la nett li yu wuute. mbir yonent yàlla Moussa noonu mbir nekk li mét donc ci déggee ni suñu borom subhaanahu wa bu ko neexee buy wax ak buy wax ak mindeefam buy wax ak ab bu ko neexee waxandoog moom mille wax maanaam junniy wax nit ki dégg na junniy wax yépp mooy bu dee mindeefay wax ak yow bëgg a wax ak moroomu mindeefam daan ko benn benn lal ma ko yàlla subhaanahu wa taala boo nee xam ne jox la mille wala milliard wax te yëpp ñu déggandoo léegi nag bu ko nekk ñeneen si ñu jëriñu si du leen ko indi lu ñu ko mën a mhm. benn par benn benn par benn benn par benn. Mhm. boo xoolee boo xoolee sa seytaan yi mhm. par benn benn lañu ko jox boo xoolee xista yoon ci àlla Moussa. aqbil wala taqaf. jàppal si wet beeg taxawal bul daw yooyu yëpp indil na la ko. mais da ko moo tax gis nga Moussa dafa neexoon ci moom ba nga xam ne bëggul conversation bi neex jeex kon loolu mooy mbiru suñu borom subhaanahu wa yonent bi dafa doon wax sallallahu alayhi wa sallam doo leen xalaat ci lu yàlla bind te bañ a xalaat ci jëmm yàlla yéen a di alal nit. Hmm. waaye aussi gis nga ak nu mu ko defee nu mu ko mënee ak bëgg ko xalaat ni ko doomu aadama yi defe loolu tamit mën naa alal doomu aadama mën naa indil nit ak wedd ci yàlla nañ ci yàlla musal. Hmm. moo tax doomu aadama yi daal nañu jéem a xool ba xam oto bi ñu yor lan moo koy taal. Hmm. waa lan mooy kon condensateur bi. courant bi nu muy demee nañ xool seen portable yi door a jéem a avancé réew ci mbiru yàlla. Hmm. yàlla nañu yàlla boole dimbali. yàlla nañu yàlla may ngëm ba ñu ba ñu am ngëm suñu borom subhaanahu wa taala nee na alif daal miim zaalika zaalika kitaabu laa rayba fiihi hmm. hudan lil muttaqiin. Hmm. waaye nee na allaziina yu'minuuna bil ghaybi door a wax ne wa yuqiimuuna salaata mooy ñi nga xam dañoo gëm kumpa. rawatina kumpa loo xam ne suñu borom subhaanahu wa taala moom dong nga ko jag jagoo euh, jox xamalu ko kenn. te du ko xamal kenn. Mm. yàlla nañu yàlla boole dimbali yàlla nañu yàlla may ngëm ak euh, iman bu dëgër. allazina amanu boole ñu ci allazina amanu wala min albisu imanahum bi zulmin ulaayika lahumul amnu wahum muhtadun suñu borom nee na ñu yàlla te seen ngëm duñ ci jaxase ak tooñ mooy bokkaale duñ ci jaxasee tay lu ñooñu ñoo nekk ci kóolute te ñoom ñoo jub yàlla ñu yàlla boole ci ñooña asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. aleykum salaam wa rahmatullahi barakaatu jërëjëf. ñoo ngi koy bëggee mbokk mi ngi tudd Dior Ndaw mu nga fële ca CTO Kaja Diallo nekk ci Thiès ñu ak ñun jotaay bi. ñu ngi leen di jaajëfal baax a baax te di leen nuyu di bekki dugg yu am solo yooyu. di xaar ñu dalal ko asalaamualeykum. waaleykum salaam. bisimilah. Eh, maa ngi leen ñoo ngi jégalu xaar bu yàgg bi. waaw. Ah, alhamdulilah bisimilah. maa ngi jërëjëf. maa ngi lay nuyu Oustaz euh, alhamdulilah jërëjëf Oustaz Alioune Mbaye. Mm-hmm. ñaar yëf laay laaj. Mm. dégg na ni. Mm. maa bugg a mm. mu bind téere. mu bind téere. boppam boo xamante ne. jaar jaaram lépp. Mm-hmm. ndax bindul téere rek. pour naan yu bëri dinaa réer après. ñoo mhm, mhm. bëgg mu bind téere boo xam ne vraiment. Mhm. Euh, dafay gën a yee jullit yi daal. ndeysaan. waaw ñaareel bi mooy ñi yore ay milliards nekk sëriñ wala nekk euh, nekk borom alal. ndax seen dëkkandoo wala seen bu ñaañee du ñu reer wala ñoo xamante ne du ñu am njaboot du fu ñu dëkk. ñoo yore seen milliards di leen seetaan loolu yàlla ci yàlla lan la ci yàlla wax. Mm. en tant que jullitaa moromam. amiin. waaw man maa ngi tudd Mala damaa dëkk ci Nawra. Mm-hmm. maa leen nuyu ma baax di fàttali ñu naan ci yéen. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax baax di nuyu waa ginnaaw raay yëpp. di nuyu mbokk mi di Makhtar Cissé ba nga ca Tiwaawan mbay aram nekk ci tubaatul ñu ngi ànd ak ñoom jotaay. ñoo ngi leen di nuyu baax te di leen siyaare bu baax a baax mbokk mi nee na oustaz mi ñaan daal nga bind téere bind euh, sa dund maanaam say jaar jaar ak euh, yu baree bari ndax mu nekk loo xamante ne dañ ci jàngi. incha allah dinaa ko bind bu financement bi ñëwee rek nu taxaw ci. Euh, mottali ko ndax tàmbali nañ ko. Mhm. incha allah macha allah jërëjëf ñu jaajëfal ko bu baax a baax ndokkeel ko sëñ naan Ndanaan Alioune Badara Cissé ñu ngi lay nuyu. mbokk <laughs> macha allah ndeysaan mbokk mi daa bëgg a bokk asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw bisimilah. Ah, eh, noo def ak coono yi hélas. ñu ngi sant yàlla bu baax jàmm rek sàll naka waa kër gi. ñu ngi si ñu si El Hadj Alioune Sall. ñoo mm. gën a jërëjëf mi ngi lay fay. di nuyu El Hadj Alioune Mbaye. ngi lay fay baax a baax ndeysaan. di ko jaajëfal di rafetlu ko conférence bi yónnee nañu ko gis na ñoom doon demee. jërëjëf jërëjëf. ñaan yàlla ñu fekk yaati at. amin amin yaa rabbal alamin. di nuyu El Hadj Saliou Sow. ñu jërëjëf mi ngi lay fay. ak Alassane Ndir mi génn noonu. jërëjëf jërëjëf. ah tuddum amati na solo. macha allah ndeysaan. di nuyu samay goro di nuyu sama mag yi bàyyi Sénégal hmm. Adja Ndeye Dramé ak Adja Mariama Dramé. ñu ngi lay fay baax a baax. ak Malick Dramé. Hmm. ah di nuyu El Hadj euh, Pamor président soppe rajo Sud Diaspora. Hmm, ndeysaan. ah wax na rek ñu euh, sant yàlla at maa ngi war atum tubaab maa ngi war a jeexati. ñu wax ne ñi nga xam ne ñooy wax ne dañoo sopp rajo Sud FM ba soppee oustaz Alioune Sall oustaz Mbacke Sylla oustaz Alioune Mbaye oustaz Momar Seck hmm. at maa ngi tàggoo hmm. ñu leen xamal ne aussi formé woon nañu bu WhatsApp hmm. bu diaspora ak bu Sénégal tamit pour jéem leen pour jéem leen a taxaw parce que mu war a joxe ay àllarba ñu war a joxe duñ ko dee joxe te ñoom it dañoo am ay daara am ay yore dañ leen bëgg a jàppale diine ñu lay wax ne kon képp ci bëgg am looy def. Mhm. am nga fa mën a jaar pour def mhm. ñu nekk senegal bu ñu ko Oustaz Mbacké la dina leen teg yoon. Mhm. ñu nekk si diaspora bu ñu jox euh, ñu Doro si la. ak euh, Amor Diaw wala man mii di wax ak yéen dina leen boole ci groupe yi. waaw parce que dafa am solo te ñi nga xam ne ñoo ñuy delloo soit suñu borom. suñu tegaat suñuy diine ji yoonu siraata mu sàq lu ñu xamul suñu diine di leen ko laaj. Hmm. dafa war a am lu ñu warloog ñoom. jërëjëf macha allah. waaw loolu daal moo doon dugg tey bi. Hmm. di ci soññaat euh, jullit yëpp ñëpp ñaan dañoo am soppe. Hmm. dama yaakaar ne ci naan da am soppe la am da am cofeel moom. dama lay delloowaat lu borom am na wala war a warloog moom. dëgg la. loolu daal moo doon euh, soññ bi. ah sama laaj mooy laajte tey nag. waaw. comme xew-xew bii di war a xew ñu ñuy ay réunion. Mm-hmm. ay laaj ndax ñun jullit. Mm-hmm. dañ cee war a ànd ak mbégte boo xamante ni dañuy dem ba di leen ci sargal. Mm-hmm. di ci dépensé loo xamante ni ah, jour yi ñuy ay tabaski bu jotee duñ ko ci def. ay laaj loolu lan na ci lislaam wax daal. d' accord lan la ci ñu wax. incha allah ustaas dina ci ñëw léegi. waaw ah, loolu moo doon laaj bi. waaw mhm. ah, yeneen yooyu nag ma koy jox ne mooy suñu imaam yi nekk ñetti mbaatoo yi. ñooñu imaam Ibou Diané imaam Dame Kayre ak Jamil Kayre ak suma rak suma xarit imaam Mballo Sall. Mhm. ñu ngi yónnee seen commissaire divisionnaire de police Soane Gueye sa xarit. jërëjëf maa ngi koy nuyu. Ah, euh, mhm. ak commissaire Abassari Diouf bu Tumal. ak monsieur le maire Amadou Anne Amadou Ly Baro. bu ñetti ndaal ak kal ak euh, Gaynde Badiane ñu ngi leen di ñoom ñëpp. jërëjëf jërëjëf. xam naa kon ñu wàcce foofu kaddu yi rek. Euh, président Pape Mor Diaw jàll na nuyooyu waa mm-hmm. ah, maa ngi nuyu waa Sénégal bi muy Adja Mata Seck ak euh, Mor Ndiaye sa sa taalibe. jërëjëf. waa nga àggale ma nuyoo bi ci ñoom. incha allah dinañ ko dégg ñoom ñëpp. waaw kon ñu wàcce foofu rek di wax wasalaatu wasalaam ala rasulillah sallallahu alayhi wa tarkalla jërëjëf alayhi salaatu wasalaam ñu ngi la ciy jaajëfal baax baax te di la ndokkeel ci dugg bu am solo boobu. di ndokkeel mbokk mi di Mouhamed Mbeng mu nga fële ca New York Abdoul Aziz Fall professeur portugais la bu nekk fële ca Bambey di ànd ak ñun jotaay ñu ngi koy nuyu moom it alaaji Pam Njoogu Sàll ngi noonu Oustaz indi na ab laajam nee na daal ci fin d'année bi xaw ma sax baat dina la ko tuddati ay merveille wala yooyu ñuy envoyé te yooyu nee na loolu na la ko lislaam gisee. waaw en tout cas bu dee ci feet gi moom nun suñu nekku ci. Mm-hmm. bu dee ci doxinu jant bi nag at mi jeex na loola moom comme neex nga ne meer ba meer mm-hmm. ba meer ba wala bonne santé nangam nangam yooyu mm-hmm. waaye daal bu dee ci nag li nga xam ne mooy feet gi moom suñu yoon nekku ci mm-hmm. wallahu taala alam su shukran ci laajam bu am solo ñu ngi koy jaajëfal baax te di ko ndokkeel xam naa léegi tey sax ñu àgg ci cat li euh, ci euh, jotaay bi jël auditeur mujj bi aleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah bisimilah. Euh, kon kon man naa yegg si kàddu daal. Mhm, naka waa boobu ba léegi maa ngi ci Aliou Mbaye Yoff Mbengeen. waaw koy sëñ Aliou jërëjëf ñoo ngi jégg lu baax a baax. amul benn problème. alhamdulilah. Euh, dama doon laajte. Hmm. suñu maam Ibrahima. Hmm. way juróom wa da daal jaamu xaram. Hmm. kon moom ab atem kenn laam-laamewu. Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. alayhi salaatu wa salaam. ñaari way juróom. Mhm. ci ban at bi beneen bi. Mhm. lii dama bëggoon oustaz ñëwal ma ci sóoratul li ilaafi Qurayshi. Mhm. ak lu waral ñu di ko ñaanal ñii di dugg. waaw jërëjëf si ñu ngi koy jaajëfal baax ci duggam bu am solo boobu. jaajëfal mbokk bi nga xam ne mooy imaam Ali Ba ma nga ci sàngal kaam. Euh, Serigne Malle Fall nekk ci Fass Mbao di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf ñu ngi koy nuyu te di ko siyaare bu baax a baax mbokk mi nee na oustaz way juri yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoom luy seenub àtte. ah lay seenub nañ ca hmm. ñoom siyoot yoog mel ni ñoom. Hmm. boobam Cheikh Lachi Malick am na lum ci bind. Hmm. xam naa ne daal seen ñaari way juram yi. seeni tur yi niru nañu tur yi lislaam ndax bu baay ji tuddee Abdallah yaay ji tudd Amina ab départ ngoo ko xamuñu fenn ci siira it fu ñu yëgee ne baay ma daf daan jàmm xërëm wala yaay ma daf daan jàmm xërëm xamuñu ko ci ndeysaan am déet mhm. xamuñu ko ci fenn mhm. euh, kon nag nu rafet njort ci ñoom rek xam ne daal ñoom fatra bi ñu nekk diggante bi ñu feeñi jamono nga xam ne ab yónent nekku fa seen doom ji nekk gutub yónent mu génn àdduna yàlla ku daaw bi ak agsiwul ci yow moo xam ne mu lay attee mm-hmm. waaw moom fekk wuñu woote bi yónent bi alayhi salaatu salaam ah bu ñu ko fekkoon yàllaa xam luñ cay luñ cay nekkee. Mhm. waaye fekk wuñ ko. léegi nag nan rafet njort ñoom rek ni ko borom xam-xam yi waxee ñoom ñëpp. Mhm. Euh, te xam ne daal ñoom ñoo ñoo meññ. Mhm. kii nga xam ne mooy ngën ji mbindeef. sallallahu alayhi wa sallam. loolu nag euh, dérogation ba ci yàlla def moom moo ko xam. waaw. wallaahu taala alam wa shukran. jërëjëf jërëjëf ñu jaajëfal ko nee na li illaa fi Xurays lu tax ñu taamu koo ñaanal kuy tukki. li muy tekkee tax. lu muy tekki. suñu borom daf ne ilaa fi Quraysh ilaa fihim rihlata shita rix laa ngoog mu ne Quraysh daa am lu ñu miinoon li ñu miinoon mooy tukki shita ak tukki sayf lañ doon wuti mooy mburu ñu sex wala yëre wu ñu sol su fekkee dañoo bëgg lool fal yaabudu rabba hadal bayt bu ñu jàmm bërëm néeg bii at'amahum min juu' mu jox leen mburu mu ñu sex wa aamanahum min xawf defal leen sécurité ñaari baat yooyu nag moo tax nit ñi di jàng lii laay fi xool si bu ñuy tukki ndax kuy tukki ku ne benn nga wuti at'amahum min juu' wa nga wuti aamanahum min xawf waaw li ëpp ci tukki yooyu rek lay lay tekki moo tax ñu koy jàng cib tukki wallahu taala alam wa shukran jërëjëf oustaz ñu jaajafal ko daal di agsi nag fi ñu war a yëkkatee jotaay bi insha allah kon nag li ci tege mooy li ci tege mooy dégluwaat tafsiru quraanul karim bi ñu amoon ay bis gi ñu weesu buñ ca noppee déglu alkitab noonu la ñu wéyee léegi yéen jotaay bi ba fajar kon nag bu leen toxal si nag déglu sëñ Mbàkke noonu ko waxee noonu lay amee insha allah subhanahu wa taala jërëgéen jëf